mbokk yi internet yu géejawaay info tey ñu ngi am mbégte ak kontaan bu mag ñu ñëw fii ci euh, ñaayu géejawaay bi côté ci géej gi ànd ak Cheikh Omar Dia mu war waxtaan tey ci poftan ak njariñam kon nag ma jox Cheikh Omar macha allah mu wax ñu tey njëriñu poftan Cheikh Omar gannaaw bëgg a nuyoo ba pare euh, bëggoon naa bi ñu xam njariñu poftan lan la ci doomu aadama mën a jëriñoo xob bi branche bi ren bi ak tóortóor beeg yëpp daal waaw gannaaw bëgg a rek mën naa dugal question boobu Bismillahirrahmanirrahim. wassalatu rahim ala sayyidina wa nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam mbokki jullit yi yi ñoo leen di nuyu si turam ak santam di nuyu waa Géejawaay info ci itte bi na am ba nu dox ba ñëw ba ci askan wi rek pour ñu garab garabu poftan poftan nak muy garab goo xam ne garab gu beri la gu beri beri. Tendin nit ñi dese nañoo xam njariñ li nekk ci tóor tóor bi njariñ yi nekk ci xob yi njariñ yi nekk ci reen yi tóor tóor yi képp koo xam ne dafa umu nga xam ne wut dara jafe na ko wala lijjanti dara jafe na ko tóor tóor yi am na lu ñu ko ci defal loo xamante ni bu soobee yàlla dina ubbeeku xob bi nit ku nu liggéey liggéey boo xam ne ak lu mu yàgg-yàgg ci yaramam ak lu mu metti metti liggéey boobu xob yi am na lu ñuy liggéey ci xob yi loolu mun na koo faj nit it buñ la joxee ñam nga lekk ko ñam bi lu mu yàgg-yàgg ci sa biir ak problème bu mun a am dinañ jël ci garab bi loo xam ne suñ la ko joxee am yeneen yuñ ko booleel ñam woowu ni nga ko lekke woon noonu nga koy gisawaat ci sa kanam mu génn poftan daal garab la bu am njariñ boo xam ne nit ñi war nañoo war nañu koo xam te war nañoo fexe ba di ko jëfandikoo bu baax a baax daal ci kàttanu yàlla waaw xam nga jëfandikoo da da am loo xam ne baatin lay doon loo xam ne du da mun toog rek waxtaanee nii rek nit dem jël paftan ak paftan dafa xaw a am posan tuuti dem jëfandikoo ko rek loru kon loolu da dul baax quoi parce que il faut nga ñëw ci ki ko xam mu xam fi mu koy jaarale yow mun mun koo jëfandikoo yow ba njariñ bi nga ci bëgg suñu borom may la ko mais doo mun ne rek paftan nii ak nii ngay def nii nit jël ko def ko nii rek sans mu jariñu ci léegi loraange day juddu ci loolu loolu moom du nekk lu baax. poftan euh, moom soo koy jëw loo ba am sa liggéey rek ci boole ak alxuraan wala ay wala ci ngay jël di traduire ba mu dem waaw xam nga alxuraan moom man mënumaa def dara génn ci alxuraan parce que alxuraan moom lu dëggu la loo xamante ni loo bëgg def mu am njariñ rek te jàpp te jàppam yàgg rek garab rek mën nga see def dara mu jàpp mee du yàgg mais alxuraan nag boo ko ci boolee boole ko garab dafay nekk lu gën a dëgër parce que sunu borom tabaraka wa taala moo ne wa nunazzilu min alquraan ma huwa sifaun wa rahmatun lil aalamiina kon alxuraan day saafara lépp kon lo bëgg def te saafara nga bëgg lool nekk ci rek kon alcorane war na ci mëna dugg bu baaxa baax dal euh, legi gannaaw loolu ren bi mom jarignam lan la am renu poftal no ren bi jarignam bari na bari na torop torop ren bi mëna ci cee ku lekk ñam bo xamne ne daf daf la comme ñu jigeen ñi def du noob nit wala nga dem ci nit mu jox la na bo ñam bo xamne ne la mom ren bi amna na ko ci jëfëndiko ak ay alcorane bo bo jëlé boko ko bo nané rek li nekkon ci biir bi mom dang koy wàcc legi sa kanam même pas 10 minutes ah, ren bi mom amna jarign bobu maam ko ci lekk mhm. a faj waaw wala ay noob am na xeetu lekk yoo xam ne boo ko lekkee tey fii ba 10 ans ni nga ko lekke woon noonu lay nekk sa biir bi tey mun na dem nag ba rey la xeetu lekk yooyu xeetu noob yeeg tooke bépp lekk bu bon rek poftan mun na koo faj ci kàttanu yàlla euh, gannaaw loolu moom euh, wax nañ ci mais tóortóor mhm. bi waaw bi moom xam nga léeg day am nit ñoo xam ne dañu umu maanaam bu ñu dañu mun jàng mais du pour ñu am diplôme day jafe dañuy jàng ba pare am diplôme pour ñu liggéey day jafe même da nga leen dig pour bëgg leen dimbali sax pour pour nga dimbali leen dafay jafe fekk umute mi ngi ci ñoom wala ñu am rab boo xam ne mi ngi ànd ak ñoom di leen yàqal su ko defee po tóortóor bi am na ñu ciy liggéey loo xamante ni ànd ak dogalu yàlla incha allah rabbi lépp lu nekk ci yow ci wàllu affaire boobu rek sunu borom mun naa def ñu ko si tóortóor yi si waaw tóortóor bi tóortóoru poftan bi beneen affaire la. kii nii man nit ku tëju ak lu say affaire même jigéen ñi nga xam ne am jëkkër da leen jafe góor ñi nga xam ne am jabar da jafe lépp tóortóor bii man ci kàttanu yàlla mën naa la si defal loo xam ne su ma ko defee balaa génn weer loolu saafara si kàttanu yàlla. Euh, waaw mais poftan bi lépp am njariñ même car yi du lépp nag la ñuy mën a wax am nañ njariñ même khas yi ngay gis ni même même même xas yi ngay gis khas yi ngay gis ni amna njariñ fof tan dal amul amul lenn lo xamanteni lu ñak njariñ la lo xamne mi ngi ci. Hmm. mais mais euh, waaw mais ça veut dire man xam nga li bañ xam nga xam nga garab nit mën nga lay biir sax xétu fièvre yo xamné ne bu dalee ni mën nga mais garab il faut ki ko mun composer dëggantaan rek moko mëna composer mu jari nit xam nga tay par exemple naa la jox ben exemple rek su ma la woon da ngay baxal ñetti xobu ñetti xobu poftan nga jël ñetti xobu poftan ma ne la nga koy baxal si litre ndox nga def ko ci litre ndox léegi nga yokk sa nga taal sa gaz taal ko ndànk ki taal gazam taal bu baax ñooñu la da koy baxal 2 minutes xam nga xam nga ki taal ndànk gazam ni muy baxee ak ki taal bu baax du bokk léegi foofu it problème mun na mun a am moo tax it duñu ñëwee pour mun a jox nit ki ne la boo jëlee xob bi def lii def lii def lii conséquence bu baaxul daal la ñuy bañ ci loolu daal maanaam daal ku mu intéressé daal si kàttanu yàlla su fekkee dégg nga ñu soo contacté ak ñun si suñuy numéro bu soobee yàlla dinañ dinañ dinañ jëflante suñu numéro orange 77 543 42 39 numéro Tigo bi 76 908 67 63 Expresso bi 70 777 16 28 ku si contacté ba tey rek ñun ñu ngi géej a way nag surtout Sofraco. si kàttanu yàlla képp ku contacté ñun ba ñëw nga nekk piccim réew nga nekk fu nekk yaa xam mais nit soxla bu mun a am rek pour bëgg ñu jëflante mën nañoo jëflante bu dee lu ñu la war a jox am nga ku la ku la ko yóbbul mën naa yomb bu fekkee dañ la ko yónnee poste wala ñu yónnee la ko ci ñuy yóbbu affaire yi tamit loolu da am benn problème si kàttanu yàlla